bi le lañ koy dooree acca moom mi xëy moom tam nit ci lu yaatu lool ñëwal li nga xam moo di situation bi taxaw ak génn Barthélemy Toye Dias fa nga xamante daanaka moo di ca mairie bu Ndakaaru lépp nag gën na fës ñetti ponk yoo xamante ni évoqué na ko moo di génn àdduna ki nga xam moo di garde koram foofu nga xam moo di ca Ndar waaye nag toftal ci li nga xam ne nationale recours ba nga xamante ni fas na ko di position am waaye nag gën a taxawaay bi nga xamante ni jot naa am lépp loo xamante ni fësal na ko ci wàll bi dañuy xamale fu mu toll ni tembe nga xam moo di mairie de ba kanam mi dellu si waat di prédit révocation Barthélemy Dias ci mairie Ndakaaru soxnaas quotidien du quotidien yéeni moom tam xëy ci lu yaatu lool ne déchu de son poste de député Barthélémy Toye contre-attaque li nga xam ne daanaka moo di décision gi waaye nag da moo di wàcc ci li nga xam moo di banque boobule jox ko ki nga xam moo di Papa Djibril Fall ndax jàpp ne ne jëmm ji mu ko ëpp jot ngir amal li nga xam moo tukkee ci wàllum liggéey googule waaye nag laataa sax mu koy amal gaañ ci dañ njëkkit li nga xam ne daanaka Mbàkke ci waxtu jot na caa toftal li nga xam daanaka moo di doxalinu ancum ndaw moom la waaye nag indiwaat li nga xam daanaka la mu duppee ne warul mën nekk combat digganteem ak lu ci bari lool moom nga xam ne teggi li nga xam moo di turam ak gëtam ñëwal li nga xam moo di xeex bi ñu sumb seen ab digg ngañ dem ba mel ni ku koy tontu moom tam ci biir xët gi jot naa dellu si yaatu loolu di xibaar ne loi bi nga xamante ni bu fekkee fas nañ ko appelé mu jëm ci wàllum code électoral Barthélémy Dias ak lu jëm ci wàllum ñàkk lucidité am kenn waru ko mën xaar fa nga xam ne ci mairie bu Ndakaaru ndax nit boo xamante ne doxal ak lucidité am warul mën a xaar ngir jiite li nga xam moo toll ci ay milliards soxnaas ñu daal ñëw ci enquête quotidien mi l'enquête survie politique radiation et possible toll ni témbé jëm ci wàllum séntu boo xamante ñu ngi koy amal ni am chapitre boo xamante ni ko pareegul la waaye gu yeggseegul jëm ci wàllum politique diggante Barthélemy Toye Dias wàllum mairie bu Ndakaaru bu Ndakaaru tey ji radiation bi nga xam ne jot naa tax amul dara la xamante ni lu légal lu ko war a mën a fondé na ci tamit ne lu jëm ci wàll gi ni bu fekkente ni ñu ngi koy jéem du mën a nekk loo xam ne lu antu te moom sax pareegul ngir jongante moom ci mairie moom jot na koo xam Abdou Khadre Ndiir moom tam introduit procédure visant li nga xam moo di réclamation ci mairie bu Ndakaaru soxnaa slo tribune lan la xëyee tey samp lu yaatu lool li nga xam moo di baax kàddu yi Barthélémy Toye Dias ak nga xam daanaka moo di Amadou Diouf mi évoqué

ko ci ñaar fukki million ak juróom yi ñu jàpp moom la war fay comme ndàmpaay ki nga xam moo di njagartu njago Diouf waaye lépp nag ñu ngi xaar fan la ci warante mujjee gëtëm ba ci code général bi ñu évoqué ñu jàpp ne wàllum crime nga ca bokkee bax tamit tooy jaas ngañ dem ba turi mel ni koo xamante ni da koy benn ba nga lim waaye am na bu ci des bu fekkente ni code général des collectivités territoriales jot nga ko lim fàtte nga code électoral ni moom la jot a wërsi di jot ni ko lim jëm ci wàll gi soxna Astou ñu daal ñëw ci yor yor yor yor quotidien moom moom tamit dafa jël daal ko samp ne Barthélémy Toye Dias yëkkati na ay kàddu waaye ngañ démba turé moom ci jëmmam tam jot naa dellu si

xam fu mu toll ni réer mbër moom la def te nit ku mën réer ba amul sax fu muy tegu tànkam kenn du ko dénk budget boo xamante ni gini toll la ba tax mu jàpp leen samp ci biir xëcc yéene kaayam waaye del siwaat seen ay kàddu ba tax daal nee mbiri daal foo ko natt jot na ko weesu mu nga mel ni ab roplaan guy naaw dans tous les sens daal fa lay demee coow daal mbër moom la def seen diggante ba tax na mu tortal seen ay kàddu jeté condamné pour délit et non pour un crime moo ni waxee ba tax na mu jàpp ne article jot na ko épargne jëm ci li nga xam daanaka moo di wàllu ginimel nga xam moo di Ngagne Demba Touré sa condamnation pour crime est définitive ñeewal li nga xam daanaka moo di mbir mi ba tax na jàpp na ne daal mbiram fu mu toll nii kenn dudu ko càmbar ba tax na lu jëm ci wàllum débat débat bi jëm ci wàllum radiation bi kenn mënatul ci doute li nga xam moo di baaraam fu structure privée dans un document administratif mooy li nga xamante daanaka moom la def jëm ci njëram moom daal si jëm boppam ay nit ñoo ko jaaree ginnaaw daal di jaay boo xam mu nga toll ci plus 5 te mooy ndey bu ñu ko doon xayma ci koppar mu war a jaar yoon dëgg mu nga toll ci juróomi milliards suñu ay koppar moom la ñu hypothéqué ci 85 millions de francs CFA mhm. li ni mel na doon jëfin boo xamante ne ay malfaiteur jàpp na ni ñoo ko amal mu di complicité boo xamante ko waaye nag ñi nga xamante ni ñoo ko amal yoon daana leen topp ngir amal lu jëm ci wàllum njuuj njaay yooyu li nga xamante ni jot nañ ko am ba na Banta Babacar Ngom fas yéene faa jaare ngir ñàkk immeuble ay information moom la am daal di ko bécc ci génn ak pàcc te mu ñëwal lu jëm ci wàllu génn àdduna ki nga xamante daanaka moo di Basiru Jóob foofee ca Ndar géej doon loo xam ne yitteel na ko lool yéenekaay gi du xibaar ne autopsie bi da jël naa génn jot na caa bokk lu jëm ci wàllum lu jëm ci wàllum cardiomégalie nga xamante ci ni wax na ko subir lu foofee ci àllu lu jëm ci wàllum ki ni mel ak autopsie bi nga xam xamante na mu nga xam daanaka ngir leeral lu jëm ci wàllum Bassirou Diop moomu la ñàkk bakkanam ba tax na ne daal les détails bouleversants yi nga xamante ni jot na am waaye tam la mu bouleversé jot na caa bokk certitude yoo xamante ni jot naa taxaw son admission ci infirmerie bi nga xamante ni jot naa bu prison bu Saint-Louis de 10h à 19h perfusion administrée ba nga xam ne jot nañ ko sampal yokkaat tamit li nga xam ne retour en cellule ba ñu constaté jëm ci wàllum urgence boo xamante ni moom moo di Keita waaye nag bi nga xamante ni moo doon jafe-jafe gu mat sëkk jëm ci moom ak la nga xam moom la ñuy constaté évacuation ci hôpital ba suivi bi nga xamante ni jot naa am ci moom lu bari loolu ak bu nga xam ne moom la décès bi di faral di wàcc lépp daal yéeni kaay gi jot na koo becc daal di caa teg na lu ci bari loolu tam lim lu ko jëm ci wàllu autopsie bu mel daal mbirum médecin jot na caa laaxu soxnaa si toom jóge ci marché pour la construction de l'équipement d'infrastructures liées au parc des technologies numériques moom la BAD ci jëm boppam jot a dellu waat li mel di dellu waat ne ci soumission ñoom seen jëm bopp dañu débusqué ab pratique bu frauduleuse boo xamante ne jot na am loolu nag jot na caa bokkee soumissionnaire boo xamante ni daanaka moom moo doon tegu ci benn compagnie sénégalaise bu ñu dénkoon travaux yi ni mel waaye nag fu mu toll tamit di ba tax na yóbbi na ay jafe-jafe yoo xamante ni moo taxaw ci le marché de construction yóbbiwaat nag nag ginnaaw accord ni témbee li leer ba en hausse jot naa toll daanaka daanaka ci deux de francs CFA yoo xamante nemmeeku nañ ko tulul nag mu ngi daal di tënku ci wàllum code douanier boo xam ne nemmeeku nañ ko ak TVA bi de trente sept bu dee droit de porte de na am ci milliard de francs CFA ndax yëpp daa jot naa grimpé muy wane ne ci fukki weer nga xam ne nemmeeku nañ ko lu jëm ci wàllu ressources financières yi tey jëlee ñu ngi mobiliser ab progression boo xam mu ngi toll ci six virgule sept wala six virgule ñëwal li nga xamante ni jot na ko lim niki démb am na loo xamante ni jot naa wàcc ci wàll wi ndax banque mondiale rapport bi nga xamante ni jot nañ ko génnee niki démb Africa ceeg seen jëm bopp jot na yëkkati ab tontu daal ko indi mais ni kuy wéddu jëm ci wàll gi ni mel ba tax na yéene gi jot naa dellusiwaat ne dette plus élevée que Sénégal ñëwal li nga xam daanaka moo war mën a am buñ sukkandikoo ci banque banque mondiale ku mu mel daal yokku tey foo ko natt jot na ko wees waaye jëm ci wàllu institution bi nga xam mu ngi préciser en matière bu Sénégal reste fu mu toll nii dessus ak fi nga xam daanaka moo dee Nigéria la yoo xam ne jot nañ ko lim ci ay dollars ci nga xam daanaka moo di ay millions fekk Sénégal nag ci waxtu bu dee franc CFA ay milliards yu takku lool moom lañ ci lim ci wàll gi ñëwal li nga xam moo jëm ci wàllum di Sénégal ba tax na yéenekaay gi di secteur informel foo ko natt jëm ci a mën a fortaat jëm ci li nga xam moo di wàllum payoor yi mën a nekk lu antu ndax tànk tam jëmuñu ci wàllum formalisation gi secteur informel du mën a amal contribution na mu waree jëm ci li nga xam moom moo tukkee ci wàllum fisc bi soxna Astour. tàggat yaram ak record. quotidien Laayeen bi moom la xëyee Malick Thiaw moom lay wuyoo Milan AC la nekk mu di Série A boobule lay doomu Sénégal allemand bi lay doon évoluer foofu di évoluer foofu nga xam moo di ci Milan AC performance am doon loo xam ne convaincre na lool ñi nga xamante ñoo di autorités yi jëm ci wàllum football ba tax ñu ngi dee seen kinkataan gi fas yéene ko convaincre dina antum déet mooy laaj gi samp tey jëlee li nga xamante ni jot naa taxaw moo lu jëm ci wàllum jaraaf en charge ñëwal li nga xam moo di Alger ndax seen match boobu nga xamante ni jotoon na fay jaar mhm. kaaf fu mu toll nii tamit mu nga il n'a pas de vergogne mooy kàddu yoo xamante ni Modou Lo jot na ko teg ci Siteu ndax jàpp na ne <laughs> daw moom bokkul ci jom bokkul ci fulal bokkul ci fayda te ku mm. koy digal nit it waxuloo ko dëgg geste bii nii lan lay signifier bu Malick Thiaw bi waaw temps yi joueurs yi jël nañ ko de ah bii de moom xaw ma daal am naa sama bësu bopp <laughs> booy sa bos ban la ma dugalaan bii ma nii laay nii nii laay jubilé <laughs> ma nooy jubilé su dugalaan bii nii lay def damay daw ba ci fi ma taxaw maye bi mooy maanaam lu mën a xew double rek. Eh. dama militaire la daan joué. <laughs> baabu waaye. waaw laajal ñoom Aliou Thiam met na sabax ak ñoom Ibou Boña bu la neexee nii rek. Eh. bu ma amee ñaar nag naan nii rek. <laughs> noonu nga daan def dama ñett dina ñëw su ma amee ñett ne ni ñeent dina ñëw. Mm. waaw. ah nga kon maa la wax lii. yàgg ngaa dugal ay bu macha allah Babacar. jërëjëf maanaam footballeur nga woon waxal loolu rek waaye ay bii yeeg boo. ah yaa wax ay deux ak quatre nga doon dugal. waaw footballeur nga woon. Eh, waxal loolu waaw footballeur nga ah, woon. man maag Adama mi ñoo yem. ah. Adama Ndiaye. ci dugal sama boos.